gannaaw bu ñu sante yàlla julli ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam sant bu tedd ki xaadimu rasul ñoo ngi nuyoo tey ziyaar tey ndokkeel ci weer wu sell wi nga xam ni mooy shahru rawatina guddi bu sell bi di guddi leen di ko xelal ñuy jiital ci nuyoo bi ak siyaar yi Cheikh Mahmoudul al xalifatul am lil muridin ayyadahu llahu wa nasara di ñaan yàlla suñu borom jàggal ko te may ko e, mën naa wax sax ni kàddu yi mënoon na ñàkk ci ñun ndax suñu tuddee guddi ga Cheikh Mouhamadul Amin Cheikh Mawlid Moustapha gi nga xam ni mooy jëwriñu Cheikh Mawlid Bara yabal ñu ñu ñëw fekk fi suñu mag Serigne Cheikh Mbacke Serigne Aliou mu yëkkati fi kàddu yu am solo yi fi yëkkati mën naa wax ni kàddu yooyu doyul wante Serigne Mouhamad Mahfouz ñuy andi nuyooy Cheikh Mawlid Moustapha di ko teg ci sa loxo yow ak njabootu suñu maam soxna may muuna bintu xaadimu rasuul di ñaan yàlla suñu borom yokk leeram te taasuñ ci barkeem waaye di fàttaliku waale itam suñu yaay soxna Bali Mbàkke nga xam ni ginnaaw soxna may muuna kenn mënutul leen xalaat te fàttali boo ko mu nekkoon bu baax ku yaatu ku bëggoon nit koo xam ni yokk la lu bari ci ginnaaw soxna si moom ñu koy ñaanal yàlla suñu borom yokk ay leeram ci barke Cheikhul Khadim nuyu sëriñ Cheikh Abdoul Ahad mi nga xam ni dangaa foog liggéey bi teg ci loxoom mu ànd koog say doom ànd koog njaboot bi yépp ñu leen di nuyu di nuyu mboolem kilifa yi fi fekk yépp E Serigne Moustapha nag yebal ñu ñu une boo xam ni bu sañoon tey kër Cheikh moo leen bari kenn fa des wante xam ngeen ni ñu bari dañoo yem ak njëñ saam a ragal koor wante lu ci mën di am yebal na une forte délégation boo xam ni Serigne Cheikh Bara Moussa Niamoul Karim imaamu buy wind moo jiite délégation bi ànd ak Serigne Lamine Mbacke mi nga xam ni mooy xalifa Serigne Ahmed Bara ak Serigne Cheikh Bara mu Serigne Abdou xam naa incha allahu bu ñu àggee ci bisu Laylatul Qadr bi moo fas yéene yëkkati kàddu Serigne bi ci bis bi na ma ko daan defee bi fi Cheikh Sidi Maxtaar nekkee moom it ànd na ci délégation bi ak Serigne Modou Bara di xalifa sëriñ Abdul Xadim sëriñ Abdul Aziz Ahmed sëriñ Xadim Mbàkke mu Cheikh Sidi Moxtar sëriñ Modou mu sëriñ Cheikh Sidi Moxtar sëriñ Yeddaali Mbàkke mu sëriñ Abdul Ahad sëriñ Modou Mbàkke mu sëriñ Abdul Ahad ak sëriñ Modou Mbàkke meen benn mu sëriñ Abdul Ahad ànd ak itam suñuy mag yu jigéen soxna maam Awa Mbacke mu sëñ Abdul Karim Baara soxna maam Bousso Mbacke mu sëñ Abdul Aziz Baara soxna Ami Mbacke mu sëñ Abdul soxna maam Jaara mu soxna Ami Mbacke soxna maam Joor Bousso mu soxna say Baara soxna Moomi Jaxate mu soxna say Baara soxna May Njaay soxna May Njaay bu soxna Faati Daaru Njaay ànd ak itam suñu jarwaat sëriñ Xadim Diop sëriñ Birane Diaw sëriñ Aliou Diop sëriñ Moustapha Tine ak sëriñ Moussa Mbengue sëriñ Mouhamadou Mahfouz loolu mooy délégation bi nga xam ni mi ngi bàyyi ko Touba Guy Mbind ci sëriñ Cheikh Mouhamadou Moustapha mi nga xam ni mooy jëwriñu Cheikh Mouhamadou Habib ngir ñëw ci bis yi nga xam ni da ngeen da baaxoo at bu nekk ngeen jagleel ko kenn ci njabootu Cheikh Cheikhul Khadim ren ngeen jagleel ko Cheikh Mouhamadou Amine ibnu Khadimu Rasul mu nekk loo xam ni lu rëy la ci moom rëy lool ci njaboot bi ba tax na bi nga yónnee Serigne Cheikh Abdoul mu ñëw waxtaan ak moom wax ko ko bërki démb bi ñu defal soxna amit lu fàttalikoo muy muy bisu ñaanam bi dafa wax foofu ni bu sañal ñépp ñëw ci ba bis bi tolloo ak borom waaye Cheikh Maodo Mahfouz sëriñ bi ak ci mbégte lool ndax bis yu mel nii dafay dundal ak mbokk silatu rahimi la te daf koy defar ndax am naa yaakaar bu baax ni tey gis nañ fi ñoo xam ni bu dul woon bis bii duñ leen gis mbaa boobu du yomb kon mu nekk lu rëy moom loo xam ne bu sañoon lépp lu ñu fi def moom moo koy def kon lu mu fi mën di def it dafa rek pas-pasam mu sant ci loolu gërëm ci ndax ku nekk xam na ni léegi tur xadar cëru soxna may muna la bindu xaatimu rasul boo xam ne Cheikhul Xadim moo ko ko jagleel te léegi tur xadar yàlla li mu wax ci soir bi te euh, sa doom Baye Cheikh Awa Balla waxtaane ko ak sëriñ Ahmadou Makhtar mu Alaaji Maam Cerno loolu wax dëgg yàlla doy sëkk tamale sa cee jàpp ñu waxtaane ndono li nga xam ni mooy alhuda ak njub ndax yonent bi fi ma sa jaar sooy ñaan yàlla njaboot li nga koy ñaan mooy doom joo xam ni dafay donn am nubuwa te nubuwa gi mooy njub gi ak xam-xam bi ñoom ñu waxtaan ci waxtaan bu am solo daanaka li ma wax lépp sëriñ Cheikh Ali wax na ko xam naa ñu dalal xel yi sant yàlla te xam ni ndonal li réerul ndax ñoom ñaar ngi toog fii man la ñuy ay ndaw ndax jotaguñu ay mag ñu wax fi wax ji fi wax xam-xamu leer nañ loolu mooy tegtale ni ndono li mi ngi fi réerul dara manqué ci ñu sant ci yàlla suñu borom te incha allahu am naa yàqin wóor ni li ñu fi wax yépp ni moom la war a taxawal ngir sàmme ko ndono yi ak Cheikh Mouhamadou Mountakha ñuy ñaan yàlla suñu borom guddal fanam ba amee ku ba lépp li nga xam ni yéene na ko ci liggéeyu islam bi. suñ borom may ko kattan mu àggal ñu ànd moom kenn ku nekk xam ni dégg nañ li mu wax liggéey yi yaatu na waaye nag lii moom daa tax muy sama liggéey mooy xam-xam kon am naa yaakaar ni mën nañu dalal xel bu baax ci loolu te xam ni incha allahu duñu mujj duñu mës a mukk mujje bu sa bi muy réer kon ñu sant yàlla xam ni liggéeyu sëriñ bi saa su nekk ñu ngi ciy gis loo xam ni dina dal ay xel su ko defee nag ñu sant yàlla euh, juddiwaat ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam am mbégte ci guddi gi nga xam ni dañu ko tudde Cheikh Mouhamadou Amine ku ne xam ne Laylatul Qadr suñu boroom wax na waaw xam naa sëriñ maam sëriñ Mbàkke suñu Abdou Ahad dafa bokk ci délégation ak sëñ Mourou Aïssa mu Cheikh Sidi Mokhtar maa ngi jégalu ci fàtte gi ma fàtte lim seen waaye bindoon naa ko laylatul xadar nekk benn guddi boo xam ni dafa bari yu ci xew suñu boroom wax ñu ko ci saaru laylatul xadar xayrun min alfi shahrin tanazzalu lmalaika malaikatu war ruuxu fiha bi idni rabbihim min kulli amrin salaamun hiya hatta matal fajri mu am yent yëf yu ci nekk yoo xam ni suñu boroom moo ñu ko jàngal moo di moo gën junniy weer tiyaaba ji ci nekk moo gën nga jaamu yàlla suñu borom junniy weer mu ne léegi xadar boobu ci la wàcce alquranul karim mu ne malaayika yi dañ ciy wàcc ba asamaanu benn bi wàcc suuf si di saafoonte jaamu yàlla suñu borom yi di leen ñaanal xéewal ba fajar jot te siir naa jibril alayhi salaam day ànd ci mbooloo moom ci kon loolu la ñuy dégg ni malaayika yi ba léegi dañuy wàcc di saafoonteeg jaame yàlla suñu borom yi kon bu guddi gi ñëwee lu nit jàppoon war nga ko bàyyi fanaane dundal ci jaamu yàlla ak jàng alxuraanu karim ba fajar jot ndax nga mën a saafoonteeg malaayika yi yërmaande yooyu malaayika yi nag dañuy ñëw saa su nekk di wàcc waaye melokaan doomu aadama la doon mën nañoo ñëw indi melakaanu kenn nga jàpp ne kii koo xam la fekk malaayika la ndax sayyidina Muhammad alayhi salaatu wasalaam ñaata yoon la Jibril wàcc ci moom di ko indi alquraanu karim bari na lool waaye ñett yoon kese la ko sayyidina Muhammad alayhi salaatu wasalaam mas a gise ni ko yàlla bindee yi ci des yépp ci melakaan doomu aadama la Jibril di ñëwale yonent bi alayhi salaatu wasalaam su demee mu ni kooku day Jibril alayhi salaatu wasalaam dafa ñëw du leen jàngal seen islam wala du leen ñëw du leen xamal seen seen diine kon ñetti yoon kese la Sayyiduna Muhammadin alayhi salaatu wasalaam mas a gisee Sayyiduna Jibril ni ko yàlla bindee mooy bu njëkk bi bi muy fàtte ak xolom dë dënn bi di ko raasal xol bi te ñëpp xam nañ ko boobu Sayyiduna Muhammad alayhi salaatu wasalaam gis na Jibril alayhi salaatu wasalaam ni ko yàlla bindee ak kere bi koy fàkk ci fekk ci xaaru xiraa di ko yëgal alquran karim ndax ko effort keroog itam sayidina Muhammad alayhi salaatu wasalaam gis na sayidina Jibril ni ko yàlla digle bu ñetteel bi mooy jógee Makkatal Mukarrama dem baytul maqdis jógee fa def ci asamaan yi keroog itam suñu sayidina Muhammad alayhi salaatu wasalaam gis na Jibril ni ko yàlla digle neneen lu dul noonu nag daf koy ñëwee ci melokaan aadama kon su ko defee nañu am warma ci képp koo xam ni yaa ngi taseeg moom ci rawatina ci guddi yu mel nii ndax ba léegi kon ci dañuy déggee ni dañuy wàcc ci ndigalu suñu borom te Jibril alayhi salaam dañuy ànd di saafoonteeg nit ñi di leen ñaanal jàmm ba kenn faral di xat kon guddi gu noonu sëñ Maodo Mahfouz ñu ngi wëlbati ko di am mbégte di sant bu baax ci cëréel gi nga xam ni cëréel ngeen bu Cheikh Mouhamed Amin Bara te yi ko waral bari na lool waaye xam nañ ni nit ñi sonn nañ guddi na ndax ñetti waxtu weesu na incha allah li ci des yëpp buñu àggee ci bis bi allah sëñ Bara Abdou Lahad fii wax ko waaye ñi ngi sant ñi ngi gërëm euh, ñëpp rawatina mbokk yi nga xam ni dañoo bàyyi itti yi ñëw fii di ñaan rek suñu boroom lépp luy fi def mu àggale ki mu soxna may mun a ak ñi fi fekk ñëpp di war a def ci suñu laay am sallallahu alayhi wa sallam wa aaxiru da'waanaa alhamdulillahi rabbil aalamiin